Ibrahima Diacko maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ibrahima Diacko nga bokk ci secretaire général adjoint ci fédération général des travailleurs du Sénégal déjà ñu lay laaj ci euh, importance bi nga xam ni élection de représentativité syndicale yi am na ko euh, ngeen war a tàmbali mbir mi ci 12 décembre bi le. ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu julli si gën gi mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaar waaw comme ni nga ko waxee solo sa euh, élection élection yi ñu jëm le douze décembre élection centrale yi li ñu ciy tànn mooy centrale syndicale yi nga xam ne nii ñoom ñooy war a jaamaarloo premier ministre ak président de la république pour revendication travailleurs yi en général ak euh, dund gu cher gi nga xam ne nii sénégalais yi ñu ngi jànkoonteeg ñoom euh, foofu itam bu fekkee ne may nga ma ko ma indi benn leeral bu ndaw entre différence syndicat ak centrale euh, syndicale syndicat benn regroupement lay doon bu nga xam ne ay nit yu bokk métier bokk benn liggéey ñoom ñooy bokk def benn takk euh, comme forme association lay doon euh, mais nag li ko différence am association association ku nekk mën na ci bokk mais façon association bi mooy nit ñi nga xam ne nii ñoo bokk benn métier comme enseignants yi mën nañ former euh, syndicat pêcheurs yi mën nañ former syndicat tailleurs yi et cetera. léegi nag euh, syndicat yooyu nga xam ne nii ñoom ñooy am ñoom ñooy booloo encore defaat beneen takk euh, def benn say ñu tuddee ko central su ma la joxee exemple centrale bi nga xam ne nii ñun moom lañ nekk mën nañ cee lim tey ñaari syndicat enseignant benn mooy ñun suñu bos sunir ak SELS-A ñu ngi négocier ak yeneen euh, syndicat enseignants yu nga xam ne nii am nañu yéene ñu ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi buñ ci jógee di nga ci gis euh, syndicat yi nga xam ne nii waa Dangote cimenterie euh, am na ci syndicat bu nga xam ne nii aussi waa kudd la am na ci syndicat bu nga xam ne nii waa port am na ci syndicat bu nga xam ne nii les ce sont les travailleurs municipaux ñun syndicat yi nga xam ne nii yëpp ñun ñoo booloo affilié ci centrale bi ñuy wax FGTS boo ko xoolee environ vingt syndicats la ñun ñoo affilié ci FGTS léegi nag euh, différence entre syndicat tout simplement ak centrale syndicale syndicat moom interlocuteur am ministre de tutelle am la par exemple ñoom dans le secteur de l'éducation Euh, suñu ministre de tutelle c' le ministère de l' éducation ak le ministère de la fonction publique ñun ñii la ñuy faral di waxal ak le ministère euh, des finance aux besoins boo demee santé par exemple ñoom seen tutelle mooy le ministère euh, de la santé ak le ministère de la fonction publique toujours ak solde toujours négociation yi ci ministère yi lay yem mais centrale bi nag moom moo am dayoo mën a négocier ak premier ministre ak président de la république lii mooy différence bi léegi nag élection yi nga xam ne nii ci lañ jëm. bu euh, buñ ci génnee central bu nga xam ne nii am nga dix pour cent central boobu moom mooy am daraja ak dayoo mën a négocier ak premier ministre ak président de la république léegi nag central bi dina mën a wax dans dans le cadre général ci dundu gu cher gi ak l'ensemble des travailleurs mu porter seeni revendications <laughs> léegi euh, critère de sélection yi naka lay demee exactement comment ça se passe élection bi. électroniquement ngeen koy def wala gars yi dañuy dem voter. waaw dañuy dem voter ji le douze. Sénégal yëpp euh, préparé nañ bureau de vote yi ak lieu de vote yi Sénégal yëpp alhamdulilah liste ñi nga xam ne nii ñoo war a voté ñëpp aussi liste définitive yi génn na ñi war a voté Mbour ñi war a voté Thiès ñi war a voté Ranérou Kanel et cetera euh, ba euh, Ziguinchor yi fépp fu nga xam ne nii ay sénégalais ay liggéeykat a nga fa def nañ fa ay lieu de vote def nañ fa ay bureau de vote léegi le douze nag travailleur bu nekk da ngay choisir sa centrale bi nga xam ne nii fa la sa syndicat demee nga voteel ko bu ñu demee ba ngoon gi ba heure bi nga xam ne nii dix huit élection yi jeex na ñu daal di dépouiller comme élection yëpp ni ñu koy defee ñu compter central bu nekk le nombre de voix bi nga am dans la région ak à l'échelle nationale léegi bu ñu boolee l'ensemble de ñi nga xam ne nii voté nañ ci la ñuy calculer centrale syndicale bu nekk ñi ci am dix pour cent ku ci am 10 pour cent nag bokk nga ci centrale yi nga xam ne nii danañ am daraja ak dayoo mën a négocier ak premier ministre ak ak ak président de la république mm. noonu lay faral di demee bon ñaari élection yi jàll ñeenti centrale ñoo doon faral di génn muy CNTS muy UNSAS muy CNTS FC ak CSA ñii ñoo doon faral di am 10 pour cent ci ñaari élection yi jàll ñun suñu central bi nag moo doon faral di ñëw cinquième waa ñaari élection yi yëpp cinquième lañ doon am doon dépassé légèrement cinq pour cent six pour cent waaw jotaguñu woon am mais bii moom rafet nañ jort incha taala eh, suñu borom subhaana wa taala dinañu boole ci ñi nga xam ne nii danañu am a négocier euh, a doon wala yi. Mhm. ak nombre yi am dix pour cent calcul la rek. supposons bu fekkee ne mille travailleurs ñoo voté exemple laay joxe mm-hmm. bu fekkee mille travailleurs junni liggéeykat ñoom ñoo voté ci Sénégal dañuy calculer ci biir junni liggéeykat bu yooyu FGTS bi ñu bokk am na ci six cent voix dañuy calculer six cent voix yi am diviser ko nu mu tuddati euh, mille yi. bu boobaa dana nekk soixante pour cent ñi ngi koy ñaan aussi remporter ko euh, largement léegi yeneen centrales yi ñii am nañ deux cent voix ñii am nañ cinquante voix fi ngay xamee pour pourcentage bi ngay am léegi nag ci biir pour pourcentage boobu ngay am ci la ñuy xool ndax matal nga pour dem too toog négociation supposons élection yi mun na am fekk ñaari centrale kese ñoo am dix pour cent wala lu ko ëpp l' mooy dix pour cent jëm kaw la mën na am ñetti centrale am ko mun na am si centrale am ko comme mun na am benn centrale kese daal di kay am ça dépend rek ci élection yi ni muy tëddee bon yii paase ñaari yii paase moom laay wax ñeenti central ñoo doon am chance am dix pour cent ñeenti central mais yii mun na am ñett rek ñoo koy am mun na am ñaar rek am ko comme mën na am six am ko mën na am cinq am ko sa dépend mais ku am dix pour cent rek en fonction yow ñi la votel ak ñu voté ñëpp foofu la ñuy calculer dix pour cent yi boo xasee ba am dix pour cent rek da bokk ci table négociation bi léegi nag ñaar yii ba jàll yàlla dogal na ñaari central ñoo ko doon am ñeenti central ñoo ko doon am mooy yi ma la limal sànq. donc campagne bi tàmbali ngeen ko wala comment naka la campagne bi di demee exactement. waaw fi ñu toll nii ñu ngi def ay tournée de prise de contact rek saafonte parce que actuellement ki yàlla dogal tey mu nekk ci bopp FGTS ginnaaw ba suñu secrétaire général euh, Sidiya Ndiaye la suuf woyof ci kawam yàlla xare ko àjjana bi mu dëddoo yàggul dara ci biir juillet bi euh, yàlla dogal na am na ko nga xam ne nii moom moo ko wuutu woon ci bopp centrale bi kooku nag boobaag léegi noppalu itam mu ngi def ay tournée de prise de contact dem dem saafonteeg euh, militants yi daal leen di xam def na le nord Saint-Louis def na Ziguinchor ak fan yi defoon na euh, Kolda aussi euh, démb mi ngi woon Kaffrine euh, démb ak barki démb je crois bien defoon na Thiès aussi léegi li ñu dese mooy Louga. Euh, ak euh, le sud-est mooy Tamba ak euh, ak ak Kédougou waa yooyu mooy yu ñu dese pour prise de contact diggante fii ak loolu moom da doon dem rek pour gisante ak militants yi xool nu ñu toogee ak seeni inscription ci list yi pour gagner élection yi léegi nag diggante fii ak fin du mois incha allah rafet nañ jot danañ commencer campagne bi e wax ak ñun ñi nga xam ne nii ci wàll bi ñu féete dans le secteur de l'éducation wax ak suñu mbokk jàngalekat yi ñu xam ne ñaar yiy jàll. ñeenti central yañ doon votel ñoom gis nañ exactement lim leen jural euh, cette fois ci rafet nañ njort danañ changer de fusil jéem a xool nu ñuy jàllale ñu mën a porter les véritables revendications des enseignants la santé aussi daal di def la même chose ainsi que les autres euh, syndicats affiliés dans la centrale. Mm-hmm. Euh, ñu gis ni leader ru centrale yu bare bare pratiquement dañ leen di tabb ca conseil économique social et environnemental est-ce que lu ni mel du indi jiixi jaaxa wala ñàkk engagement ci jafe-jafe liggéeykat yi. waaw loolu moom loolu moom euh, ni ko ñëpp gisee conseil économique social et environnemental. Mhm. pour satisfaire de la clientèle politique la rek. li ñuy wax naan la démocratie a un coût démocratie fu mu am effectivement il faut nga dépenser bon comme yàlla dogal na nag aussi bokk na ci avantage yi nga xam ne nii centrale syndicale bu am 10 pour cent. am nga droit siège foofu loolu lay nit ñi di consommer rek l' nag mooy bu ñu fa demee ñu xam toogaay bañ fay war a toogee mais malheureusement li nga xam ne nii at yii ñu passé gis nañ ko bon nit ñi dañuy nguuru mais ni ñu war a jëriñee nit ñi. malheureusement malheureusement jëriñ mais wuñ ko noonu travailleurs yi loolu itam seen daraja bi ñu am di wax ak premier ministre di wax ak président de la république ñun ñëpp gis nañ li nga xam ne nii moo xew Sénégal liñ fay dem li bon euh, comme règlement la lu nit ñi déggoo la ku am pour cent am nga droit yebal fa sa nit ña nga fay fekk nañuy comporté wu en général doo ko mën a changer parce que doo fa nekk benn nit ñaari nit ba ñeent nit te lu nga xam ne nii ay téeméer yu teg lay doon doo leen mën a changer seen nekk ci euh, conseil boobu boobu ce sont des politiciens rek yu nga xam ne ni le parti au pouvoir da leen di bëgg satisfaire tout simplement c'est juste satisfaire la clientèle politique parce que mënoo defandoo ñëpp ministre mënoo defandoo ñëpp député alay sago ñeneen ñi nga am foo leen dugal mais franchement parlant ba fii ñuy wax li ñu war a jëriñ Sénégalais yi jëriñ jëriñe giñ ko ko waaw Sénégal moom dama lay wax benn mbir yàlla suturaal nañu alhamdulilah. Hmm. lii ñuy wax ci rajo la ñuy waxee sénégalais yépp ñu ngi koy dégg amul benn sénégalais tey bu mën a weddi Sénégal amul réew bu ko gën a riche ci àdduna amul la suñu borom subhaanahu wa taala defal réew bu gën a riche Sénégal bu ñu toogee ba au Sénégal liggéeykat yi yi nekk ci biir réew mi condition précaire yi nga xam ne nii moom la ñuy liggéey gis nga jamonoy esclave nga xam ne eh, daawuñ ko woon daawul woon am salaire moom dañ ko daan forcé mu liggéey liñ koy lu mu tuddati du lu mu lu mu lekk ak lu mu naan lañ koy jox na am force bu muy mën a liggéeyee ñun tey sous une autre façon rek. doo duñu la forcer à cent pour cent mais presque da nga nangu loo xam ne nii dana la wóor ne boo ko nanguwul sa morom def ndax liggéey am fi liggéey dafa jafe lu waroon a lu warutoon a nekk malheureusement maintenant boo amee liggéey aussi gis na ñun ñëpp conditions yi nga xam ne nii condition yi ñuy liggéeyee ñeneen ñi nga xam ne nii aussi chômage bi na ma yàlla baal gis nañ ko ba ni sénégalais yi di traversé géej gi xam di wutali Espagne te réewu Espagne boobu ci def defu suñu borom subhaanahu wa taala amut lu mu am lu Sénégal amut ay espagnol ak ay sénégalais rek ñoo am différence moom la ñuy wax la ressource humaine espagnol yi dañoo gën a taxaw sénégalais yi tout simplement c'est-à-dire les politiciens de l'Espagne euh, contrairement aux politiciens du Sénégal ñële dañuy falu pour servir seen réew mais ñun suñuy politiciens la plupart du temps dañuy falu pour se servir pour jëriñu mais tey li fi nekk ci alal li fi nekk ci richesse ci biir réew mi sénégalais yi macha allah waruñu woon ñee benn peuple li ci def nag ñooñu ñuy fal député ñooñu ñuy fal conseil économique social ñeenti tax ma am 10 pour cent ci ñaari élection yi ñoom ñoo jëriñut lu bari rek mais buñ jëriñoon lu bari tey sénégalais yi macha allah ci def defatuñu borom subhaanahu wa taala deselatuñu dara jox nañu lépp luñ ñu war a jox pour ñu pour ñu épanouir su nekkul rek mooy sénégalais yi taxawuñ taxawaay bi ñu a taxaw. Hmm. dernière question Ibrahima Diacko euh, naka nga gisee taxawaay au conseil du dialogue social est-ce que amal na leen njëriñ waaw wala déet yéen syndicalistes yi. waaw daanaka euh, dinaa bamtuwaat li muy haut conseil muy assemblée nationale muy exécutif muy leneen ak leneen a ci bokk yam dañoo ne Sénégal amul réew ci àdduna bi bu ko ëpp alal bu ko ëpp richesse amut sur tous les plans sur le plans culturel sur le plan naturels ak sur le plan spirituel ñun yàlla di seelutuñu dara jox nañu lépp conseil économique et social comme ni ma la ko waxee ay militants yu des parce que partie au pouvoir day fal ay ministre fal ay ministre ba ñun normalement quinze ministre doy na Sénégal pour ñu yóbbu ko fa mu war a yegg quinze ministre bu ñuy dem bay romb ay trente ministre c'est pour satisfaire de la clientèle politique créer ay ministères yoo xam ne amuñu njëriñ mais alay sago ñu def ko parce que parti au pouvoir bi moom mooy am ay militants yu toll noonu yokk nañ fi effectifu député yi malheureusement foofu itam sa militant yi nga am yëpp mënuñoo nekk député dana des ay ténor yoo xam ne ay borom dara ci parti bi alay sax nga wutal leen loolu lañ créé ko haut conseil économique et social maa ngi naan haut conseil le conseil économique et social et environnemental pour recaser foofu ay militants mili ay militants parti au pouvoir yu am daraja yu nga xam ne mënuñoo nekk ministre ñoo nekk député alay sax ñu wutal leen ñooñu buñ fa demee demuluñ fa pour intérêt Sénégal te ba mu ba ñu amee ba léegi wax leen lan exactement lañ jëriñ. loolu à l'image de l'Assemblée nationale à l'image de l'exécutif et cetera dañoo toog di consommer seeni avantage tout simplement au dos des Sénégalais mais bu fekkoon ne amal nañ ñu njëriñ tey Sénégalais du fi jóge di wutali Europe ndax ay Europe amuñu lu Sénégal amul amul ça n'existe pas Sénégal moo am ñoom lu ñu amul fii la ñuy ñëw di root si France fii lay dundee Chine mi ngi fii wut si euh, Corée mi ngi fii wut si ab ab lu nga xam ne nii amuñu ko seen réew ñoom ñu ngi koy wut si fii ñun peut-être technologie mooy lu nga xam ne nii moom la ñuy jéegaani mais à part ça toutes mi ngi fi boo xoolee nag au finish da ngay fekk la l'élite sénégalaise ñi nga xam ne ni ñoom la yàlla féetale kaw ñu yor euh, teraanga Sénégal yor yor yor seen euh, seen daraja yor seen li nga xam ne nii moom la ñu war a teddee ñooñu ñooñu jëriñut lu bari loolu nag y compris le conseil économique et social. voilà Ibrahima Diacko en tout cas Rewmi FM mi ngi lay remercier bu baax a baax. Ah, man maa ngi leen di jaar jaajëfal aussi di leen sant di leen gërëm. Euh, lépp lu nga xam ne ni rëccu nañu ci rek euh, ñi ngi koy jégalu bu baax a baax lépp lu nga xam ne ni aussi jaar na ci yoon ñi ngi koy sante suñu borom subhaanahu wa taala di la remercier waat li ngeen ñu permettre ñu wax ak sénégalais yi allahuma salli ala rasulillah ñuy fàttali ni Ibrahima Diacko secrétaire général adjoint nga ca fédération générale des travailleurs du Sénégal ñu koy remercier bu baax a baax. C'est moi qui